faj mi fexe ba faj mi baax am qualité euh, personnel bi si la ñu nekk direction bi également si la ñu nekk mais xam nga booy liggéey du ñàkk de temps en temps mu am ay jafe-jafe mais jafe-jafe yi nag dañ koy waxtaanee jàngat yi dépassé ko ah parce que euh, liggéey moo mel noonu mais loolu dañ koy minimiser fexe ba nga xam ni on a on est conscient de nos responsabilités li ñuy mën rek mooy chaque jour li ñuy def fexe ba affaire yi jëm kanam mbir yi gën a mën a améliorer wu si wàllu population parce que ñoom ñoo tax ñu nekk fi. il faut que mu leer si population bi ñun fu ñuy jëlee rek ñoom daanaka euh, du loo xam ni dañ koy dañ koy jënd di ko jaay ñoom dañu fi teg seeni garab di ko jaay pour population bi pour mu gën a yomb donc ñoom tant que ñu ngi am garab rek ñun dañ koy jox population bi. ñoom bu ñu noppee am garab nag dina am ay jafe-jafe yoo xam ne xëy na da ciy am te loolu également loolu rek la mën a demee